ci kaso bi war nañ la xam ñoom buñ la xoolee rek dañ lay jàng mais ñu si bëri kuy dugg kaso doo ngay summi sa yëri summi sa tubéy doo dese dara ñu palpe la gauche ak droite fekk amul puso amul paak amul lamset ñu solalaat la ko mais am na ñoo xam ne bu ñu leen xoolee dinañ xam ne kii du kat kii du fi yore paaka si ñoom rek sa comportement rek après ñu ne la demal jarul ñu lay palpe mun nañ la palpe nii rek sa poos mais kenn du la soumis day am ma ne leen léegi nag buñ ko toogee foofu dalal kook jàmm muy pénitencier yi ñoom ñoo koy choisiral ban chambre la jëm du nabu lay naan chambre un laa bëgg dem wala deux wala trois directeur bi nga xam ne mooy nekk foofu ci pénitencier mën na xool wala chef de cour bi xool ban chambre nga xam ne peut-être bëriwul ay xeexkat wala ay xulookat wala ay teesantekat mu ñëw mu dugal la foofu loolu pénitence yi ñoo la koy xoolal du police moo lay naan bu ñëwee dugal leen ko chambre 3 wala chambre déedéet du gendarmerie tamit loolu pénitence yi ñoo koy def mais nee naa leen te journal observateur bi na ma ko tey dinañ ko liir léegi pour suñu yenn mbokk yi nga xam ne du ñu lire journaux yi comme d'hab rek si journaux yi la sukkandiku rek di ñëw fii def jàngat après ñu waxtaan suñu biir. dégg naa ñu ne Nabou Leye ba mu ñëwee si kaso bi guddi boobu yëpp nelawul waa doo mën a nelaw nag doo mën a nelaw sa premier guddi ci kaso moom boo xoolee quatre murs nga toog ci biir ñu tëj la bunt bi giri lay doon mais lu ko wër lépp miir lay doon ci kaw nga gis genre fenêtre comme picc si biir kaaf waa loolu day xaw a doy waar nag boo ko tàmmut boo ko musta parce que loo xamul xamoo ko tamit parce que bu la fekkoon sa kër yaa ngi ñëw tëdd sa kawlal matelas bu nooy taal sa vase te commander télé bi zappé taal clim dugg si salle de bi genre tu es libre mais fee boo ñëwee lali de un am na lal yoo xam ne genre comme lali yooyu nga xam ne dañ koy tegle mën nga tëdd si yooyu lal yoo xam ne dañuy nekk benn lal nii kii tëdd si kaw nii nii nii fekk ay lal la day am tamit souvent mais ñoom ñoo lay dalal te loolu la journaliste bi wax loolu laa leen waxoon fii barki démb ma ne la ñooñu doo gis kenn xeelu ko si parce que ñooñu nekk foofu yëg nañu lu xew parce que dañuy suivre télé ci biir prison bi ci biir chambre bi dinga am télé di nga jàpp Walfadjri di nga jàpp RTS ñi nekk si kaso bi ñoom ñu ngi doon xam lu xew mais nabulee moom ba léegi xamuloon lu xew parce que depuis dig dañuy nangu téléphone am garde à vue bu jógee dig di ñëw tribunal du yore téléphone du seetaan tele du seetaan TikTok dara lépp ko réer mais ñi nekk sa kaso ba ñu ngi doon suivre parce que affaire yi ñu ngi ko doon wax si tele yi ñu ngi ko doon wax si si si si si presse ñoom dinañ ko suivre bu ñu def ay revue de presse léegi bu ñëwee ci biir kër gi ñooñu ñoo koy dalal di ko ne muñal sa famille ngi fii kii problème di la am dafa jur doom mu faat wala kii da doon xeexal patron mu rey ko wala kii moo jël dëwlin bu tàng jër sotti ko jëkkëram jëkkër ji dee na bu ko defee yow sa bopp sax pare da ngay sa problème ah bah oui ku nekk sa problème ah am na ñu fa yóbbu jigéen dañoo sàcc seen peut-être oru patron ñu tëj leen peut-être ñii tuuru jàmbur mooy natt yi rek ñu lekk xaalis natt ba ñu tëj leen di nga ko fekk di nga fekk koo xamante ni peut-être tàngal na parce que yàgg nañ dégg Sénégal jabar ju rey jëkkër am na fa ñooñu ñëpp foofu lañ nekk am na ñoo xam ne it rey nañu seen goro dégg nañ ko Sénégal jabar bi rey na goro bi muy goro bu góor wala goro bu jigéen léegi yow boo ñëwee nga ne Sénégal yépp ñu ngi naan yaa rey Aziz Dabala yaa rey Aziz Dabala boo ñëwee toog première jour ñooñu dañ lay defal si guddi si tamit ñooñu dinañ leen muñal xanaa gisoo faatu mu ngi nii toog déggoo woon problème bi amoon ku rey jëkkëram mu ngi nii toog am na fi ñett at juge nañ ko mu nga dëkk fukki at wala fukki ak juróom kooku dina ne ah ñoo yem problème nattu la di la consoler keneen ki ne ah man de sama jëkkër dama ko bettoon ak beneen jigéen sama kaw lal ma ma ma sotti ko déwlin bu tàng dee na mu ngi nii tëj nañ ma vingt ans kooku tamit di la expliquer problème bu ko defee yow sax après da ngay fàtte sa problème parce que moom ba mu nekkee ci biti wax yooyu nit ñi kenn wax ko am naa problème lii problème laa nit ñëpp dañ ko doon xëpp di dal si kawam dinaan yaa rey waroon rey Aziz Dabala nii na naa mais c'est différent bu nekkee ci biir fee fee kenn du ko ne ay yaa rey Aziz Dabala defoo yëfu gor patati pata déedéet fee dañ koy ne muñal fii ku nekk ak sa problème loo gis dafay jeex fii boo gisee ñu ñëw fi rek nattu yàlla la moo tax après moom it mooy loolu tey na ngi dégg sax jox nañ ko occasion wax na téléphone ak famem mooy lim la doon wax barki dem dina wax ak famem téléphone pas téléphone tactique yeeg whatsapp déedéet appel mooy téléphone Nokia simple wala Samsung yi dañ lay jox ne wool sa yaay am nga droit woo sa yaay benn cinq minutes wala dix minutes loolu chaque jour la lundi ba àjjuma chaque jour da ngay téléphone samedi ak dimanche nag amul woote parce que day fekk gars yenn kilifa yi duñ nekk foofu dañu nekk weekend mais lundi ba àjjuma mën nga woote lundi mën nga woote mardi mën nga woote mercredi da ngay woote woote bi nag souvent dama doon fay foog na deux cent francs wala cent cinquante francs da ngay fay peut-être amoo tamit les moyens mën nga jékki-jékki gars yi social beeg yooyu jàppale la gars yi jox la nga woote. mooy li mu leen doon wax nag problème bi après tournure yi day bëri parce que maa ngi dégg si ay nit wóoruma wóoruma de mais damay dégg rek si rajo kankan yi yenn nit ne Nabou Leye ba léegi dafa ne takku si laalewu si dama koy dégg comme ni ngeen di koy déggee xawma am ñu ne Nabou Leye avoué na yëg na affaire bi nii la demee mais nag dafa am fu ma bëggoon tey muy liveur yeeg ak ñii di si wax ñépp ñu sóoraale Aziz moom dem na te bu dee ay jullit lañu bu dee nag ay jullit lañu dañ ñu yare ñun ñëpp dañu jàngal ñun ñëpp bépp doomu aadama bu wuy ji boromam lépp loo ko xamal lu ñaaw noppil moo tax bu ma gisee yenn liveur yi dinaan woyi lii lañ ko doon wax borom lii borom laa même bu dee dëgg la bul si sori yàlla mën na jégal ñëpp te bu leen fàtte njaboot mu ngi fi muy yaay muy sœur muy frère ñoo ñëpp ñu ngi si réseaux sociaux yi di suivre bu ñu toggee yenn live kat yi di ubbeeku naan wéy c'est-à-dire woo naa nee nañu lii lii la nekkoon def ko lii non bu ñu exagéré tamit quoi sincèrement parler parce que souvent dañu doon naan fen buy defar moo gën dëgg buy yàq te it du lëpp la ñuy wax il faut que ñu ñëwaat ne xam ne tamit on est des sénégalais ñu xamaat ko que nous sommes des sénégalais dañoo am culture nee naa leen luñ ñu wax rek mooy doomu aadama bu génnee àdduna loo ko xamal lu ñaaw lu bon naankatu sàngara la woon bu ko mës a wax parce que génn na àdduna bul wax naankatu sàngara la woon defkat lu bon la woon non pour ñii di live bu leen fàtte vidéo yi day des sa famille ñu ngi seetaan te da leen di vexé yenn kàddu yi nekk leen ay nit benn benn benn benn benn benn benn instant tamit quoi ngeen sóoraale ngeen sóoraale parce que kii dem jamono ji li mu soxla rek mooy ku ko sànni ñaan même bu dee mu ngi nekkoon naka sudul noonu ci kaw suuf mën na ko rëccu foofu mu tëdd nañ ko ñaan yàlla sunu borom yàlla jéggal ko ay bàkkaaram yàlla yërmandem ak a yaatu yàlla sunu borom yërmandem ak a yaatu wax na ko bu doon nit ay àtte nit moom ñu xam ne ñun ñëpp am nañu problème mais yàlla mun na xool nit ki xam ne kii mu ngi woon si dëngte gii wala lii la moo ko ko yóbbee lan moo ko ko defloo yàlla xam ne kii ab jaamam la jaam buy juum seytaan ëpp ko doole bu doon malayka la du def li bu doon yónente la du def lii mais jaam la te it dañoo ne nit bu dul juum amul nit bu dul juum amul parce que fii nag nanu sunu borom rek di jéggal ñun ñëpp suñuy bàkkaar mais bu sunu borom naree ñu toppee ñu ñépp suñuy dëngte suñuy ñaawteef suñuy def-def caaf xam de awa baa wi am caaf xam waaw waay parce que souvent nga dégg waaraatekat yi naan way nga yëg si car rapide xale bu jigéen bi def bodi nga xool gis bàkkaar la nga toog si biis jigéen toog sa wet nga jege ko baakaar la ah fuñ jëm xam nga lim leen di wax léegi bus yi dañuy fees sax ba xale bu jigéen xale bu goor ne ko soxna toogal fii mu toog nga uuf ko ah baakaar la te yow yaa baax yaa ngi doon wut xale bu jigéen bi da taxaw na si bus bi sonn na yow toog nga tu es confortable nga ne ko sœur toogal mu toog yaa ngi wut baax mais baakaar la parce que du sa soxna affaire yooyu moo tax yooyu yëpp tey nag dañuy ñaan borom bi jéggal parce que souvent nga dégg loo xam ne waroo koon déglu bàkkaar la souvent nga gis loo warutoon gis baakaar la waa léegi bàkkaar yooyu yëpp tey borom bi bu ñu ko baalul bàkkaar bu ne danga ko war muy kii bu rey nit da koy fay kii njaaloo da koy fay kii sàngara da koy fay kii jëw da koy fay kii wax lu ko leerul da koy fay waaye ñun ñëpp tey bu ñu naree bàkkaar ku fay kan mooy am loo xamante ni tey euh, euh, euh, taux blanc weextal amoo baakaar baa dina bëri waaye hmm? baa dina bëri donc na mu ngi noonu léegi dama bëgg ñu seetaan fii sax parce que maa ngi doon gis même Pape Ndiaye mu ngi ko doon wax euh, oh la ñu déglu ko comme lu mu doon wax ci prison yi Sénégal ñaata prison si nekk ak yooyu après dina am ñu ma jël ak yooyu après ah mais ñu dégloo gum lii s'il vous donc ñoom ñëpp bokkuñ fu ñu nekk quoi. non ñoom ñëpp bokkuñu fu ñu nekk. te sax du juge bi la placé sous mandat de dépôt wala procureur mooy décider yow ban prison ngay dem de. waaw loolu moom administration pénitentiaire moo koy décider quoi. c'est l'administration pénitentiaire qui la carte pénitentiaire. Mm. ñoom ñooy apprécier en fonction prison yi euh, prison bu am place ak norme sécuritaire ak yooyu ñoom ñooy apprécier xool fan lañ la war a yóbbu. absolument juge nag mën na demander par exemple. am nañ transfèrement dafa am administratif ak transfèrement judiciaire nit mën na nekk prison bi juge bi sàkk ñu yóbbu ko beneen kaso wala mhm. loolu mën na nekk mhm. donc pour euh, indi ay leeral ci côté prison Sénégal yi li ma leen di njëkk a leeral mooy Sénégal 37 prison moo fi am 37 ci 37 prisons yi région de Dakar moo ci ëppale ay prison Dakar am na 8 prisons mhm. donc 8 prisons Dakar yi compté leen Rëbës Rëbës Cap Manuel forbe mooy fi ñuy denc mineurs mhm, forbe. pavillon spécial. Mhm. mooy euh, prison bi nekk biir hôpital Dantec xam nga biir hôpital Dantec am na prison bu fa nekk. mooy pavillon ah, spécial ñaata ngoo. prison des femmes de Rufisque. Mhm. prison des femmes de Liberté 6. ak camp ak camp lii mooy huit prisons yi nekk Dakar. première catégorie prison bi mooy kaso yi nga xam ne ñu ñu àtteegul ñoo fay nekk. te Sénégal ñaar la ci am. mooy mhm. rëbës. Mhm. ak prison des femmes bu liberté 6. donc prison des femmes bu liberté 6 jigéen ñi ñu atteegul ñoo fay ne bu ñu leen mhm. attee ba pare dañu leen di jël yóbbu leen ci prison des femmes yéen nekk. bi nekk liberté 6 ñu ñu atteegul ñoo fay ne bu bi nekk liberté 6. rëbës. statut maison d'arrêt la am maanaam kaso boo xam ne ñu ñu atteegul ñoo fay nekk. ku jàpp rek. voilà la mën nañ la fa yóbbu. voilà ñu ñu atteegul détenu provisoire. donc rëbës duñ fa fa ñi ñu àtte ba pare ku ñu àtte ba pare bàyyi la rëbës. Mm. ça veut dire que bu ndaw ngay tëdd. Mm. peine bu ndaw mooy un mois. trois mois. Mm. six mois am na ñoo xam sax condamné na leen un an ñu def appel ñu bàyyi leen fa pour ñu àttewaat leen mais ba si demee ba àtte bi définitif dañu leen fay jëlee yóbbu leen fa beneen catégorie prison. donc rëbës loolu la ñu statut maison d'arrêt la am maanaam ñi ñu àtteegul ñoo fa war nekk ku ñu àtte bàyyi la fa rek peine bu ndaw ngay tëdd. donc boobu mooy première catégorie bi mooy kaso mooy kaso yi nga xam ne ñi ñu atte ba pare lañ fay yóbbu. Mm-hmm. Euh, Sénégal ñaar la ci am muy camp bu Liberté 6. Mm-hmm. ak camp bu Koutal fële ci région de Kaolack am nag yeneen camp yoo xam ne ñu koy tabax mais pareegul. Mm-hmm. boobu mooy deuxième catégorie bi moom même si camp parfois boo fa demee tam di nga fa fekk ci jamono détenu politique sax da nga fekk ñoo xam ne atteegul ñoo ñu def leen fa. parce kon mm-hmm. boobu mooy deuxième catégorie mm-hmm. troisième catégorie bi mooy maison d'arrêt et de correction moo nag mooy prison yi nga xamante moom prison mixte la ñëpp fay daje ñi ñu atte ba pare mm-hmm. ñi ñu atteegul jigéen ñi ak mineurs mais day am séparation entre day am quartier pour femmes jigéen ñi fa ñuy ak góor ñi dañ leen di ber boobu mooy boobu mooy kii bi beneen catégorie bi mooy maison de correction te boobu Sénégal benn la ci am muy Sébikotane Sébikotane moom maison

camp pénal ak maf maf boo jugee sens rond-point liberté 6 jëm ci deux voies mm-hmm. bi ngay am na li ngay njëkk a jot mooy camp Secoumba am na ñu koy jaawale prison bi mais bokkul boo foofu camp g kii la alkaati yi policier camp pénal moo nekk foofu mm-hmm. après boo weesoo camp mm-hmm. prison des femmes ah. donc rëbës duñ fa tëj jigéen camp pénal duñ fa tëj jigéen ma répété ko une deuxième fois rëbës duñ fa tëj jigéen. Mhm. camp pénal duñ fa tëj jigéen parce que parfois da ngay dégg jigéen ñi. camp maf moom voilà ñu bëri xam nga a xam mhm. Mhm. foofu bu dendal foofu mooy maf. mooy maison d'arrêt pour femme. donc foofu ñaari prison moo fa donc c' était vraiment bon. ñu leeral li nga xamante moom mooy catégorisation prison yi ñu xam. yan kaso la ñu jagleel ñi ñu atteegul mm-hmm. yan kaso la ñu jagleel ñi ñu atte ba pare yan kaso la ñu jagleel jigéen ñi lañ jël mm-hmm. donc particularité boobu nag ci région ci Dakar la boo demee ci région yi ay prison mixte moo fa am mooy mm-hmm. prison départementale yi donc 37 prisons Sénégal yi yaakaar naa xam nga leen fi ñu nekk prison Bakel Matam. Matam na Podor. Dagana. Saint-Louis. Ziguinchor. Oussouye. Bignona. Sédhiou. Vélingara. Kolda. Thiès. Tivaouane. Gossas. Foundiougne Bambey. Mhm. Linguère Kébémer Kaffrine. Mhm. Tambacounda Kédougou ma yeggale wala ma foofu. bàyyi rek après gars yi dina. dinañ ko quoi waaw kon am na solo bu baax a baax. mais sànq ñi ngi wax lu am solo ah muy. ci prison bi. yaa ngi dégg ñenn ñi naan la nabu Leye mu nga rëbës. Mhm. ok yaakaar naa ni excusez-moi leeral na leen ñaata prison ñoo am Sénégal xam nga tey am na ñoo xam ne boo leen ko laajoon sax xamuñu ko. moo tax dafa baax ay moment nga koy jàng xam ne temps de prison ñoo am dafa am solo dafa am solo nga koy xam mbaaye dina ñëw gars yi xam naa ni mu ngi noppaleeg yooyu dina ñëw xam naa ni ah donc on continue rek sunu live ñu tappate rek la famille ñu waxtaan fi loo xamante ni c'est pour ñun ñëpp ñu siy xam donc wax nañ leen ginnaaw Nabou Leye ba mu demee si ban chambre la nekk muy chambre cinq ainsi de suite balaa ma doon door foofu sax bëggoon naa door ci maa ngi dégg que fan yi changé nañu commissaire bu central bu dakaar Dramé ak ñoom commissaire sûreté urbain di l'autre la lu xees la euh, Sangaré changé nañu commissaire Dick di ak euh, Sarr mais maa ngi dégg yenn nit naan way Sarr dañ ko fa waroon bàyyi wala kee non police ñoom lu ñuy def xam nañ ko parce que Adramé Sarr balaa fu ma mu fay nekk dafa am ku fa nekkoon dafa am ku fa nekkoon Adramé Sarr balaa mu fay nekk dafa am ku fa nekkoon nii kiñ fa def nii daf fay nekk quelque temps it keneen day ñëw parce que rien n'est éternel Bara Sangaré balaa muy nekk commissaire sûreté urbain dafa am fu mu nekkoon sûreté urbaine ki ko jiite woon bu njëkk mooy ki nekkoon commissariat central bi eh, si boppam ki nekk commissaire central moo nekkoon sûreté urbaine moo jógee sûreté urbaine ñu def ko commissaire central Bara Sankaré moom la remplacé jamono ñii nag dafa tomb lu ñu naan tombé waral ay gaaf lu ñu waajoon la depuis quelque temps pour changer commissaire yi parce que benn commissaire tamit moo moo poste de police bi te maa ngi dégg ay nit naan way Dramé Sarr enquête bi dikk enquête bu rafet la def si affaire ñoom na bu Leye la plupart enquête bi ñu koy def Bara Sarr euh, euh, commissaire Dramé Sarr boppam du ko def parce que il est le commissaire mooy jox ay éléments am ndigal parce que boo demee dikk ku nekk ak sa liggéey foofu ba coow li jugee police Pikine lañ leen ko jox ñu yëkkati ko si police Pikine jox ko waa DIC buñ ko jox waa DIC commissaire ba lañ koy jébbal mais commissaire bi du def enquête bi boo xoolee Nabou Leye ku ko doon déglu DIC du doon commissaire bi commissaire bi dafa may ay élément am foofu mu yenn adjudant yeeg ainsi de suite ainsi de suite lieutenant yeeg ñooñu ñooy di déglu léegi ñooñu bu ñu dégloo nag après ñooy dem di wax commissaire bi ne lii lañu ñu enquête tey gars seen analyse donc tey bu ñuy jaajëfal bu commissaire bi rek la ñuy jaajëfal parce que ñii ngi wax rajo yëpp commissaire Adrame Sarr def na liggéey bu am solo def na liggéey bu am solo ñu ngi fàtte ñi nekkoon sur le terrain ñi leen doon déglu te loolu dafa am solo ñu jaajëfal leen ñoom ñëpp La plupart, c'est vrai, il est le commissaire Dick mais du moom moo mën a enquête bi waaw enquête bi ñeneen ñoo koy mëne ñu ngi nekk souvent bureau enquêteur la ñuy nekk ñu ñuy déglu déglu déglu bind mais ñoom bu ñu paree nag dañuy rendre compte seen kilifa muy commissaire bi bu ko defee ñu xool yan point lañ nar a bu si commissaire bi amee xam-xam dolli leen ne bu ma sañoon ngeen piste côté bi buy wax bu ma sañoon ngeen piste boor bi di nga gis benn liet naa ne ko wala commissaire est que du ñu defee nii dañ koy waxtaane kon liggéeyu groupe la donc pour ngeen xamee ko noonu donc ñoom ñëpp dañ leen di jaajëfal mais bëgg nañu ñu gën a sécuriser wax dëkk bi parce que gis nanu wax nañ leen ko démb géejuwaay am na ku kagulu dem dugg kër jàmbur koo xamante ni xaalis lay yoroon si bu ma juumul dem teg ko pistolet mooy li ma doon wax barkaati démb gi doog a ñëw ñoom maam Ndiaye Savon xam nga maa leen koy wax barki nee naa leen ñoom maam Ndiaye Savon ak gàngooram ñu mel ni ñoom te ñu nekk si TikTok bi souvent nga gis ñuy live naan laay laay man rek a jaay jaay naa dix millions jaay naa quinze millions nanu arrêté yooyu parce que defkat yi dañoo am TikTok di seetaan fu ñu toog ñoom yoruñu sax deux mille francs bu ñu déggee benn nit naan sama bénéfice tey cinq millions la wala li ma takk sama lamak sama portable sama lépp vingt millions la daleen di jaral ñu wuti ji ay moto yore nañ seen i goon dañuy ñëw def descente tiire fa nit rey jël sa alal dem yaay perte xaalis kenn du ko def si magasin boo jaayee dix million sa bopp nga ko jaayal nëbbal ko sa bopp neel rek maa ngi jaay bu ñu xam jaay nga deux mille bu ñu xam jaay nga trois mill mais xam nga tey nag réseau sociaux yi ñu bëri tey dañ see nee woon naa leen Sénégal bu ñuy doon wut test pour nit ubbi TikTok ñu bëri duñ am TikTok parce que xel nit xel noo toog ubbi sa entreprise nga toog si TikTok bi naan jaay naa vingt million jaay loolu boo ko defee sax. impôt bi mën na jékki-jékki ñëw tey di la dal non man xam ndax sénégalais yi merci Pendus impôt bi waa impôt dañuy toog di gis ay maam jaay savon di jaay seeni saabu ñu ne ah ñi yoruñu dara ñi seen saabu yi bu ñu jëndee xeme jënd dugub jënd petrol jënd suukar bu ñu jaayee lu ñuy am di mille la ñuy am quinze mille ñi jaruñu fay impôt mais bu impo toogee di seetaan mu dégg ñu ngi am chiffre d'affaires temps de million par weer wala par semaine impôt bi da leen di dal parce que impôt balaa mu lay mën a ne taay mu dal rek mooy yaa ngi am alal yaa ngi am bénéfice c'est vrai seen cantine fu ñu am dinañu fay mairie loolu mairie la ñuy fay mooy seen affiche yu def si buntu yeeg fii chez Mame Ndiaye Savon numéro téléphone loolu dañ koy fay mairie mais impôt waaw fix bi looloo sonal journaliste yi ñu ngi jooy ñu ngi naan tant de milliards la nu fayeku yaa ngi dégg fu journaliste faye nag yow mii di jaay saabu day am ngay million da ngay de kon nag nii nii noppi balaa ngay yàqule di yàqal ñeneen aussi ah bah oui noppi rek agresseurs yi duñ la songu impôt du la songu catit du la songu nit da ngay nite nag sincèrement parler mais comme nu ko gars yi di waxee rek souvent moom Sénégal laisse tomber yi wax ba wax lu ñu nu ñu tëddeeg seen jëkkër démb commencé na sax loolu yéen a koy gis si réseau yi nii laa tëddeeg sama jëkkër nii la ma def nee la ma def laisse tomber